bu doon ab ruuj la ñu war a bay ba xew nañu dencaat suuna si ba déwén ndax raado gi nga xam ne gone Real Madrid doon nañ ko raado fële ca Santiago Bernabéu loolee dese naa set wi ci match boobee jeex na tàkk témboo la ñu def kenn kum ci man di doon am nga benn bit ci ñaari équipe yi Bernardo Silva ak ki nga xam ni mooy Vinicius Junior kenn ku ci na ci sa ginnaaw takk ñaar fukk ñaar fukk boo ko boolee mu nekk ñeen fukk tombeeg li nga xam ne daanaka boo amu sens Real Madrid dabbar ñi na ko ci li nga xam ne mooy terrain boobee nga xam ne moo nekkoon ca Santiago Bernabéu waaye ñun match boobee lanu ca xam jàngat ko ci mooy première mi-temps bi nga xam ne Real def na ko euh, toj na foofee nga xam ne mooy Santiago ndax première mi-temps boobee euh, mucc na ayib latéral doon na naaw euh, di fëri fëri ku ci mel ni Camavinga doxal 100 pour cent lépp jàmm lépp tolloo ki nga xam ni moo nekk défenseur central Real Madrid wala ñoom ñaar nekk ki nga xam ni moo nekk Rudiger moom it am na taxawaay boo xam ni def na ko ca ba gaa yi kontaan digg milieu terrain bi maa ngi ci première mi-temps ba tey dox na ki nga xam ni moo nekk Toni Kroos ak Modrić ak ki nga xam ni mooy Fede Valverde ñoom it waroon a def lépp daanaka def nañ ko wesaara nañ li nga xam ne match boo xam ne bu mucc ayib la ba tey ci première mi-temps bi Vinicius Junior moom mi newoon ci côté càmmoñ gi doon na def ay redoublement di def li nga xam ne mooy a passe ba tey moo tax mu dugal bit boobee nga xam ne ah, Cavani nga moo ko ko jox ci li nga xam ne mooy première mi-temps bi kii nag di président bi nga xam ne mooy président équipe ba ñu naan ko kii di Karim Moustapha Benzema moom it taxawaayam desoon na dat bu baax a baax waaye deuxième mi-temps nga xam ne ñëw nañ ci ci occasion yoo xam ne yu am solo la Real Madrid dafa mel ni ku tegg loxoom gone City yi nag mel ni ñu tappatiku nag di doxal deuxième mi-temps ba ñoo ko moom cinq par cinq di dàbbar ñi di doxal ngiwal ak Espagne moo tax daanaka ñu témboog Real Madrid li ñuy joxe ndaje nag mooy match bi war a am fële ca Manchester City match boobee nag dana mucc ayib waaye nag gone Madrid yi danañu waajal ndax match Ligue des Champions la ñu xam tam